salaamaaleykum à tous nos amis internautes de votre site d'information Dakar Net seen rubrique reportage dafay dellu si waat Ousin ngeen ci àndal tey nag ñu ngi fi nga xamante ni moom mooy garage Dior ah fii ci wetu marché Dior bi taxaw chauffeur yi nekk sama ginnaaw ñu war a waxtaanee mbirum yokku mburu mi ndax xam ngeen ni ah, yàggul dara ñi nga xamante ni ñoom ñooy association des boulangers dañoo xëy rek ñoom dañoo bëgg yokk li nga xamante ni mooy mburu mi président Macky Sall wala sax nguur gi d'accord na ci loolu alors coow li nag bëri na mburu mi léegi dañ koy yokk waaye pois bi ci ñoom li ñu wax mooy dañu koy yokk maanaam 200 grammes bi dañu koy yokk léegi kilo mburu bi mu ngi lay dikkee daanaka fanweer ak juróom euh, liibar bi mi ngi lay dikkee daanaka ñaar fukk te lool la ñu bëgg ñu wax waxtaanee euh, fii ci Dakarnet sama ginnaaw nag gis ngeen samay mbokk chauffeur yi ñoom ñoo fi taxaw euh, ñoom ci ñoom la ñu bëgg a njëkkee waxtaan bi xool ku ne xam na chauffeur ni muy faral di mel ak mburu saa yu xëyee dafay nàkk mburu def ci ndambe def ci sax kafe daal di koy ubbeekoo balaa ngoon gi muy laal fondé wala leneen jéy topp ma ñu dem xool gars yi lan la ñu xalaat ci li ñu tàmm ngir waxtaane ko alors euh, li ma la bëggoon laaj mooy yokku mburu mi nga noo ko gisee. yokku mburu mi man de arrangé ma man. ndax parce que man ñëwuma xiif te dama bëgg mburu may gis. yow yow ñaari kii ñaari kilo par exemple. dama def dara nag sëñ ñebe laa a sant man <laughs> waaw. mais sëñ ñebe mënul sëñ sëñ ñebe foog mu ànd ak mburu. waaw mburu lay àndal lépp moo tax dama koy sant bu baax parce que defar na fi lu bari booy yëpp ngay gis <laughs> bu xëyee sa ñebe lay laaj man damay xëy lekk ñaari libar ak ñebe. kilo 175 la. waaw man kilo laay ndeke waaw. def si nambe 300 wala cent yow téeméer ngay ndekkee xam nga loolu. laal kafe ak meew. man la ma am ndekkee parce que ñu mën ko ndekkee de. yoruma laal bu diis. yokk bi arrangé wul ma bu ma que bi moom ay gën a arrangé man parce que mu bëgg mburu <laughs> mais mais ni nga amee ni nga amee weccit pour jënd ko du ñëpp ñoo mën a ndekkee téeméer am na ñoo xam bi sax du ñu xëyee da leen Euh, en fait nga bëgg si yokk mbur loolu noo ko gisee. ñun chauffeur lañ nag loo nga war a sóoraale te chauffeur dafa jaboote ñun bu ñu génne gaale duñu indi dara mais ba la ñibbi gaale ñu baale xaalis te dañuy lekk ba suur naan ba mandi loo chauffeur a ko man ñu su nguur gi tam mënuñ loolu chauffeur ko sañ tamit chauffeur sañ yor léegi junne maye ko xaar leneen kon chauffeur dañ leen sant te chauffeur maanaam mooy doole mboolo mooy doole boo ko déggee. bàyyi euh, mburu bi dem ci fonde bi tam. fonde bi fonde moom mën mën buñ ko doon jaay fu mu xam naa pour mu am ci lu ma suur dana jafe de te mel mbaxal tamit moom ñaari palaat lay lekk palaat téeméer. ñaari palaat mbaxal ngay lekk. ñaari palaat lay lekk. day am kaane am kaane am diwtiir am solo bu ñorut. dina toll de. day naas. day saf saabu man sama doom day biraan ñang <laughs> dañ koy laal naas. waaw loolu problème état la xam nga temps yii jékkoon nañ fi boulangerie yëpp xëy grève même pas un mois gars yi ne yokk nañ kii kii euh, euh, euh, kii mburu bi. mais dinañ yokk mburu bi mais poids bu wax la ñuy yokk à 10 pour cent duñ la ko yokk dañ ay 5 pour cent ay 6 pour cent 7 pour cent dawal un mois da par exemple man damay téye kilo mburu ne ko tëf mu jeex. mais gars yi nee nañ nee nañ bu ñu yokkee mburu bi daf ko 175 maanaam fanweeri juróom dañuy yokk poids bi 200 grammes. poids bi loolu ay ay rek ay xeetu fitis la rek poids bu ñu ko yokkoon fi un mois boo togaatee deux mois ñu bu dee 10 pour cent la dañ la ko wàccee 7 pour cent 6 man xale laa. war naa man a lekk kilo mburu wala mu des boo ma ko joxoon fat fat dama koy dóor kon xam nga ne loolu du kilo mburu kilo mburu dëggantaan kilo mburu bu baax man war naa see man a lekk ba suur yee mais boo loolu gars yi ba ñu la ko wax ay xeetu dóor la rek réew mi moo laaj loolu da nga fi coow deux semaines trois semaines boulangerie yi dalawaat poids bi fu mu nekkoon après mu jeex ñu lekk xaalis askan bi saa lool moo fi am gars yi loolu la ñu négocier mais yow ma la gisee ni ma ñëw fekk la ngay kaas di wax waxu oto yow ban problème en fait fii bëri na chauffeur am na ñu si bëri amuñu amuñu amuñu ah, yoruñu oto yu ndawal comme par exemple am na ñu yor ay sociétés yu am doole comme nga jënd benn oto 10 millions 10 millions nga dem 100 mille une semaine nga am permis am na ku dem tarbi bu métier bi def si ay ay ay si ay ay 7 ans 8 dem si fu nekk gis daj lu nekk. moom toog na fii am na permis mënul dawal société bi loolu moo ko yàq ñi am xaalis nañ jël ñu tarbi métier mi ñu dawalale mais même pas ku nekk si état école ku nekk si état école di dawalal koo xamante ni soog yu bëri ngay gis si APA loo ko war nga gis APA da ngay daw 10 oto def benn soog loolu la ko war a gars yi ko de la route boo ko bëggee dangay ñëw si ñi ko jàng ñi ko tarbiwu ñi ko jàng ñi ko tarbiwu nga jël leen am na ay oto yu lay romb fii ni jànguñu oto xamuñu ko de la route xamuñu xamuñ forus ñëw rek burle la. ah mburu bi daal mu ngi noonu man da dama damaa yeew rek ñu ne dañoo yokk mburu yi ndax ku yore njaboot ñu la boo war a jëndee ñaari kilo trois cent cinquante boo yore war a ñetti kilo fo jëm ah mburu ak keeb léegi ñoo yem prix affaire bi daal métti daal moom xaw ma fu ñuy jëm nag yàlla ñu yàlla suturaal rek waaw. yow pour yow ci boulanger yi la wala ci état bi moom moo moo seetaan boulanger yi daf leen nekk. fépp la daal léegi fépp la ndax ku nekk day commercial boppam boulanger yi dañuy commerce état des commerce ñoom ñaar daal kenn mënul wax ne kii ak kii mooy kii affaire bi daal métti na daal moom dëkk bi daal moom mu ngi daal makki na daal makki boo xam ne kenn xamul fu ñuy jëm ah nañu wàññi mburu bi wàññi ceeb wàññi diwlin nit ñi mën a dund. loolu moo baax. mais ñoom euh, ah boo yoree nga nar a sonn fay école kii yi programme yi dañoo bari de nit ñi dañoo sonn de boo jéngut nag man de ndox laay jaay maa ngi nii ndox laay jaay damay wër ba sonn waaw nga ku wër di jaay ndox ñu na la mburu kilo 350 ñaar kilo 350 loo dafa métti ah. nañ ko xoolal. léegi mais nee nañ ñoom bu ñu yokkee mbirum dañuy yokk poids bi loolu tam noo ko gisee. dañuy yokk poids dañuy wax lu leen neex dongo fii daal moom politique rek la bu ñu la nee nii la du ñu jëm foofu lu ñuy def sonal nit ñi dong nit ñi nag sonal nañu léegi kenn mënu wax dara lu leen neex nañ ko def waaw ñu toog di leen seetaan waaw dëkk bi moom si instant bi kenn du wax de dañuy noppi di leen xool ñu xool ni ñuy manipuler seen xel ak seen xalaat waaw ku nekk na nga xool nu ngay def rek réaliser rek. est ce que yéen yi di ñëw pour boo leen di falaat ak yooyu muy local yi muy présidentiel ñoom ñëpp a yem amul keneen amul kaa amul dàmba amul samba ñoom ñëpp a yem ku ci rek deel wax wax wax wax ba nit ñi ne nga dem nga woor ñooñu dem dem yoon ah fu ñuy jëm ñu rek ba élection jotee ku ñu war a wooteel ñu ko rek ndax woote moom élection moom ndam moom yàlla ko yore. waaw métti na moom wax dëgg yàlla moom. waaw métti na si ñun nga xam ne moom chaque jour moom waaw ñun moom la ñuy xañee moom la ñuy ndékkee waaw di si reer parce que lépp kay di si def lépp di si njogoon waaw métti na moom wax dëgg yàlla métti bu fu métti moom wax dëgg yàlla bu ñu yokkee mburu mi dañuy yokk poids mburu mi. dañuy yokk poids bi mu tolloon oyofaay bi dina xaw a diis tuuti daal. Ah, comme day gën a diis. waaw waaw loolu ba tey naa nekk. mais tam mu a diis wala. <laughs> ah man moom ni mu man mane naa ko dëgg yàlla bu diisee arrangé na moom bu kiiyee arrangé na moom dix sax moo baax dix bi moo baax waaw dix baax waaw mais seer na moom loolu moom dafa métti ba ëpp waaw gars nañ ci wax rek waaw nañ si jàppale moom métti na wax dëgg yàlla moom waaw xam nga di nekk ndaw ba pare di liggéey nii xam nga mooy loolu noonu mais yàlla baax na. gisoon dañoo xaw war wàññi mburu mi xëy na dem ci fonde bi xëy na mu tànn tuuti booy ko mi tuuti. non moom pour man man du ma lekk fonde man moom pour man lekku feebar la quoi fonde moom tàmmu ma pour lekk wax dëgg yàlla moom tàmmu ma ko dëgg yàlla mbur waaw daal laa xam. kilo mbur ngay ndekkee wala libar wala. na ma libar rek <laughs> libar rek. libar ngay nekkee. libar rek wallaahi. ak ni nga mburu nii. waaw bëgg dëgg yàlla ngoon gi nii parfois ma ci sax njogonal nii mais yoon rek noonu la demee. mburu ngay la demee yaa ko laal. <laughs> ah ma ngi xanaa si rek ñun ay baadaaw leen ah, na si rek. moom xëy na mën na ko bañ a yëg sax mais ñu moom dañ koy yëg waaw fa la problème nekk noonu la demee nag mais na si jàpp rek lu tax gaa yi yokk ko tamit moom xam naa ko ñoom xam nañ ko fëriñ ba yokk waaw kon ci ñoom la jëlee koo xam nga n'est-ce pas ñoom ñoo si mën a jàpp quoi nañ si jàpp rek yàlla baax na sala mais métti na trop nag moom arrangé wu ñu de wax dëgg yàlla ñoom si lañ ndekki si lañ jox nal mooy loolu noonu yokk mburu yàlla jaaxal na ma man état état bi yow problème état ci boppam moo ma jaaxal instant bi parce que benn fort amu fi Sénégal amul liggéey amul dara jaay moo fi am moom ngay créer amul emploi yow pour nga liggéey da am sa sa diplôme mais pour nga liggéey il faut nga am branlon soog a liggéey ñuy yokk di yokk baadoole yi di gën a sonn dañoo sonn barke yàlla sonn nañ trop ba ci jaay bi jaay bi suñu bénéfice bi ñu war a am sax dañ ko yokk wóor na yàlla. te Macky bi ñu koy fal yaakaar moo taxoon ñu fal ko. mais pas lii. mais bu dee dañuy yokk bu ñu yokkee mburu bi dañuy yokk poids bi tamit yokk yokku yooyu noonu moo amul sens daal parce que ñun ay baadoola lañ amuñu xaalis il faut ñu liggéey pour mën a dund rawatina ñun ñi nga xamante ne ay mair célibataire lañ dañoo yor njoboo divorcé xam nga góoru Sénégal dundalul kenn da ngay daw ba da ngay découragé wóor na yàlla dee nañ torop sonn nañ ba seydinaa Seydina Mohamed